asalaamaaleykum suñu mbokk Xelcom TV nuyu nañ leen siyaar nañ leen bu baax a baax ki nga xamante ne moo di Serigne baara Ndiaye dafa def benn analyse bu pertinant si ki nga xamante ne moo di Idrissa Seck jëmale ko ci Ousmane Sonko sans plus tarder dañ leen di bàyyi ak ki nga xamante ne moo di Serigne Bara Ndiaye mu ñëw détaillé ñu expliqué ñu. fee nga xamantene ki nga xamantene mo ni Idrissa Seck jot ko te aussi tamit euh, ban taxaway la wara am si election euh, yi nga xamantene lañu jëmmal si 2024 ki nga xamantene ne di Serigne Bara Ndiaye nak ñepp rañé nañ ko si côté politique bi ak si côté médecin traditionnel ndax vraiment amna na xam-xam te am na lu ko yalla may ci côté politique bi sans plus tarder dañ koy bay mu ñëw expliquer ñu euh sortie bi nga xamantene Idrissa Seck jotoon nako def ba ki nga xamantene modi moo Macky jot ko euh, riposté sans plus tarder dañ leen di bàyyi ak Serigne Bara Ndiaye mu ñëw gëna développer jëre ngeen jëf. moy dembu bo xolé première fois moy tëkkul karawat <laughs> relax na. waaw day relax manam am politique bu sérieux wut day tëdd tak karawat Macky Sall bi mi dalal gaynde yi da doon woné affaire xalé bu góor contane yam ak nit ñi quoi. moo tax démb boo xoolee ci discours bi sax Idrissa tegul woon ay affaire xam-xam ak ak principe yi mu jëm moom li mu doon def mooy kàbbar ci boppam sëlmal ci boppam moom mooy kan ba diggante bi ñu ko fi bëgg a yab ko tëkkaleeg Sonko ak ay bugaan ñu bàyyi loolu tax xam ne moom moo fi indi ceeb moo fi indi internet ba ma jànganoog diw maa jëloon pay bañ dajee maa jël maanaam xeet yooyu ba ma bañ ma ëmbee sax doon nañ visite loo sama yaay këri àjjana yeeg xeet yooyu daal maanaam loolu la doon indiwaat boo xoolee dëgg dëgg dëgg nag Idriss Seck dafa jàpp ne nit ñi nawuñ ko mu doon wax pour ñu naw ko leneen mu ci dolli rek maanaam da caa dolli ko première bi ñu des mooy da doon yokki noonam. comment waaw ah, da koo xamul ci naka la mu wax ci ibaadu yi wax ko ci tiijaan yi ak diggante xaadim bu sax fajar gañ ko fi rayoon mu ne bu ma doon jëli Sonko fajar laa koy jëli loolu dafa am lu muy wax dégg nga daal di wax ne man tiijaan nangam nangam wérdu tiijaan ñëw ci xas dal ci kaw Macky Sall dal ci kaw laay Wade dal ci kaw Sonko. démb moom xaw ma fu mu fanaan waaw jubluwu ko ci nag. lan la waaw bi ci des it mooy moom Macky Sall kenn ku ne da ngaa bëgg a sarxe sa morom. Hmm? Hmm. Macky Sall daa bëgg Idrissa dem mu xool ba xam lu ko lu mu koy yàqal. Idi daa bëgg Macky Sall wax ne damay def troisième mandat su ko waxee guddi maanaam su ko waxee midi une heure mu génn da njëkk ko dal ci kawam pour amaat sympathie sénégalais loolu tax Idi waxagut fu mu jëm. Hmm. kenn ku ne da ngay sarxe sa morom boo xoolee bi mu defoon fan city tax ko xam nga lu tax maki daf ne damay wax Idi ne damay wax maki ñew ba ci permanence bi ne bayina ko Idi tamit daan man bayina naa ko Macky di junju di wër-wërloo moom it muy junju di wër-wërloo rek. kenn ku nekk na da nga bëgg def sa morom nako sarax ndax maki xalaat na bu laajee départ yi wara départ ci mom est-ce que lu lu koy wañ lolu lolu mi ngi koy xalaat légui nak bëgg na junju junju junju ba xam ñan ñoo bëgg mhm. ci biir groupe bi pour mu man leen mu man leen a évacuer d'accord boo xoolee ay falaat gaa yeeg jaayaat carte membre yi ci biir rek xool ku jaayaat ak ko jaayut yooyu yëpp ay kii la mais ragal na jekki jékki ne damay def troisième mandat rek Youssou Ndour génn na ko du ci dal dégg nga rek Idrissa génn ne ko du ci dal Aly Ngouille jóg na ko du ci dal loolu xalaat na ko léegi nag day wër-wërloo di junj Idrissa day taxaw di xaar tant que Macky waxul Idi di wax.

foofu la affaire bi nekk. mais ban interprétation ngay def ci question Aïda bi bi ko journaliste bi laaj am ni ko ndax yow xalaat nga ay élection am ci dëkk bi te Idy du ci bokk. bu ko journaliste bi laaj doon ci na wax moom. du ko fekk mu toog ñu jox ko micro mu ne ko est di nga bokk daa xalaat ne mën naa bañ a bokk mën naa bokk. Idy dafa laaj ne ko ndax journaliste bi ndax xalaat nga lool rek bu ko waaji waaj da ko waroon ne ko xalaat naa ko. ci fin bi nee na ko waaw man de loolu la question bi ndax yow xalaat nga élection ah. mhm. na cee bokk de benn sens nag la mën a am mooy bu fexee lijjanti na ba Macky Sall jox ko Benno Bokk Yaakaar jox ko xaalis ànd ak moom campagne. Mhm. mais lu mooy loolu. Mm. du ci am dara. ndax loolu mën naa nekk. ah mën naa nekk de parce que Macky Sall moom lu wóor wér. Mhm. mooy ñàkk a bokk. moo moo gën ci moom bokk politiquement nag laa lay wax. man ci sa gis-gis laa politiquement. Macky ah. Sall bañ a bokk te itam liñ naan ku iñaane sa ndono saw deewi ñaaw loolu mooy bëgg dal Macky Sall mooy keroog bañ defee le 14 septembre bi mu formé gouvernement bi. Hmm. formé assemblée nationale rek dafa waroon wax bokkuma. muy hmm. waxtaan heure bii dafa waroon fekk ñu nekk di concerté wu kenn ku ne di dund yaakaar. ci biir mooy bi Cheikh Bara comme di comme. lu a investir tamit bu parti bi yëngoo du ko defaraat. oke ok Cheikh Bara gars yi yaakaar nañ yaakaar nañ ci Sonko gol rencontre am Ousmane Sonko très bien li leen dal moy yak nit ñi mom fi ni ni manam mbolem koy waxo ko dox xam nga ne Ousmane Sonko mom bu démé élection midi mu gañé ko ñepp xam nañ appel bi gars di ngar-ngari boko gisé man lima japp parce que bo gisé C50 lim bind Fat Macky Sall lim ko bind hmm. ne ko sa politique bi dafa bari arrestation yi dafa metti li ngay annulé ay marche dafa bari organiser ay élection yu transparence ta leer ta am jam il faut nga def ko ne ko tamit forum bi wara am Sénégal mois de juin bu fi yëngu-yëngu politique amee dañ koy fam ta loolu bu amee dafa am lu muy jouer ci suñu économie kon donc ñom logique bi Amadou Ba nek nekkul ci logique bu xex mais lima ma mën a waat mooy bis bu Macky Sall toogee ne mag Sonko yaay candidat bi leer na ah dana gis ku yor milliard romb ko jox ko Sonko kuy wax Sonko ngay waxal décret ko gën a dëgër décret Macky Sall mooy dee dox moo tax nu mu mën a def man fii na nii fii laalo la koy wax gis nga bu lëndee li ma gëm laa wax de li ma yaakaar mooy dañuy ñëw renvoyé di ko renvoyé di ko renvoyé rek laata laata renvoi bi ci ay kàddu Idrissa Seck ñu dégg élection yi d'ici vingt ah? cinq août ah vingt cinq août buñ fi jugé wut boo fi laalee ab candidat union internationale on ngay waxal wala wala wala cede yaw parce que lolu 6 mois d'ici 25 août d'ici 25 août nak yow ya gëna xamné xam bu sérieux buñ ñu war a nan nga mën a joxe euh euh jox ko jugement ne ko mën ngaa ñëw def appel fi 1 mois avant 1 mois ya nga dem and ak kenn ko organiser ap ap ki moy sérieux wul man ci li ma jàpp laa wax. mais Cheikh Bara balaa ngaa dugg. yaa ngi li ma gën a gëm. mooy ko renvoyé di ko renvoyé ba fu kenn xamul. parce que ñoom ñoom Sonko nekk candidat bu toog ñii di xaar 2024 mu dugg ci palais bi su ko doonee Macky Sall lu mu fiy defati. mais cas idi bi il faut nga des. mais Sonko yaa gën a xam ne yow Macky Sall juróom-ñaar fukki xelam. Mhm. xalaatut ñu ubbi rajo bii. Mhm. Sénégalais yi dégg ñu ne Sonko du bokk ci élection yi demuk Idrissa Seck. fooy organiser élection demuk Idrissa Seck. Ah, dem Gambie élection fa pare jël résultat yi. Cheikh Cheikh waaw mbokk yi ñoo ko déggandoo euh, analyse bu pertinent bi nga xamante ne sëñ Bara def na ko ci Idrissa Seck jëmale ko ci élection yi ñu dëmmal en deux mille vingt quatre mu nekk ay analyse yu pertinent dégg nañ ko tamit mu wax ci côté Ousmane Sonko wax ci ay xalaat yu rafet wax que ni su fekkee Sonko yor na réew mi li nga xamante ne moo di justice. Euh, dina mën a euh, régler te tamit euh, ñëpp dinañ gis seen bopp ci pétrole ak gaz bi nga xamante ne moo ngi feeñ actuellement ci biir diwaanu Sénégal mu nekk ay kàddu yi nga xamante ne nag allah ñëpp ñoo ngi koy rafetlu parce que ki nga xamante ne moo Serigne Bara kilifa bu ñëpp jox bopp la te tamit ay kàddoom macha allah dafay fajaate te dafay tax tamit ñëpp gën a bëgg ki nga xamante ne Ousmane Sonko comme donc gars yi di leen jox di daje ba beneen vidéo ci euh, keneen euh, patriote